auzu billaahi mina seytaani rajiim yi bismillaahi rahmaani rahiim yi asalaamaaleykum wa rahmatulaahi barakaatu yéen waa Daaru Salaam Sibaaw ñoo leen ziar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéewal yar defar àdduna ak àlaaxira di ko ñaanal mboolem fay mën a nekk rek te di ñu déglu di leen ziar baax leen ñaanal defar àdduna ak àlaaxira ginnaaw sant yàlla julli jën bi salaahu alayhi ñoo ngi ñaanal fay mën a nekk rek xéewal sutura teraanga ju sax dàq dàq. ci barkab ji day si naam salaahu salaam tey nag ñu ñëw ci saar wu am njariñ ci alxuraan muy inna anzalnaahu fi laylatul qadri saar woo nag ci la ñuy laylatul qadr boo demee lu laylatul qadr ñëw na ci ñetti yoon ci biir saar wa laylatul qadr ñëw na ñetti yoon ci biir saar wa moo tax ñu lu laylatul qadr ca 27 muy nga def neuf fois trois mu jox la vingt sept laylatul qadr moo tax ñooñu laylatul qadr ca vingt sept ja laylatul qadr nag lañ naan sanaaw nag xam naa laylatul qadr sax taxu ñoo jóg waaye dañ ca wax lool rek ak ñeneen ñi laylatul qadr ci yeneen fànn yëpp dañ ci mos a ñëwaat ci yeneen jëmmi jamono waaye liñ tax a jóg tijaa mooy ki xam ci bàkk xeetu ak koo xam ne nii daa bëgg mucc ci sàcc ku jàng ina ansana fii leen xadri ut suuf su sell tibb ci loxoom suuf sell jàng ca ina ansanaaw fii leen xadri fukki yoon ak ñaar ina ansanaaw fii leen xadri wama adraka ma laylatul xadri laylatul xadri xayru min alfi sërin tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xataa matla'il fajr nga jàng ko fukki yoon ak ñaar ko toflu ko suuf soosee lépp looy ba ñu sàcc nga aare ko nga warale ko béréb boobee kenn du ko jël incha allah rabbi bisub àllarba na nga koy def bisub àllarba nga koy jàng sotti ko mbooleem fooy ba ñu sàcc fa dara rek incha allah rabbi kenn du fa sàcc dara inna anzalnaahu fii laylatil qadr nga jàng ko ñaar jël suuf tufli ko ja sotti ko fa nga ba ñu sàcc ko kenn du fa jël dara boo bëggee tamit. mucc ci bàkkaar wala suñ borom jéggal la sa bàkkaar yu njëkk ak ki mujj danga koy jàng bisub alxames fanweeri yoon bisub alxames ngay jàng ina sa naaw ansanaahu fi lul qadri bam jeex fanweeri yoon kooku tamit suñ borom képp ko def bisub alxames suñ borom dana la jéggal sa bàkkaar yu njëkk ak bàkkaar yu mujj kon ñaar yooyu rek lu am solo ci saar wi nga xam mooy suratul qadar suratul qadar nag mooy saar wi nga xam ci la suñ borom doon wàcce dogal yi xadar mooy dogal kon ñu xamee ko noonu tamit di ñaanal jàmm guddoon wér xew yaa def root nag alaxira